Euh, Youssou Ndour le premier contrat que j'ai eu c'est un contrat de Youssou Ndour head office c'est même pas du groupe Futur Média ouais. head office te si head office boobu la ma Youssou Ndour c'est Bercy et j'avais une bonne partie de la régie de Bercy ouais. et mention spéciale à l'époque Youssou Ndour avait invité trois cents Sénégalais jox leen billet d'avion boobu si la amoon le contrat Arctic Airlines mu jox leen billet d'avion jox leen chambre jox leen per diem jox leen billet Bercy mhm. loolu yëpp de A à Z maa ko gérer directement entre les mains de Youssou Ndour et moi moo leen këram lañ dem Paris mu génnee xaalis bi génnee lépp jox ma ne ma demal tu gères tout le monde si y a un problème tu me reviens c'est des grands hommes ah. Ouais. comme El Hadj te ku nekk man Youssou loolu mooy li ma gën a marqué ci moom. ah El par exemple fii lañ toog fekk boobu yàlla dimbali woon na ma ma yóbbu sama yaay Makka mu war a ñëw ñu nekk biroom toog di réunir nii ma ne ko dama war a dem mu ne ma foo jëm ma ne ko non foo ma dem foora damay jëndi nag mu ne ah loolu day nag bi ma ko mais sama yaay day ñëw suba foo ma dem jëndi nag bi pour toppatoo gàlle bi mu ne ma non toogal jël téléphone bi woote gars yi livré ma nag bi sama kër ça c'est fort c'est important pour moi tu vois de montagnes mais am yéene bi. Mhm. Mm, amul pay. donc dafa am ñun nit ñi yaree nooy looy jàngat ci nit looy téye ci moom j'ai passé des moments difficiles à El Hadj Ndiaye ah mënul mënul mënul nekk. Euh, câlin câlin de bout à bout. d'accord mais euh, étant Moustapha Diop nekk maanaam ñoom ñaari parti yëpp. ak TFM. oui ak ci jamono bi mu toll nii ak ampleur yi mu am est-ce que gisoo ni yow euh, faites partie les personnes les plus idéales pour mën a def médiation boobu. Euh, tu sais moi je dis fondamentalement. Hmm? entre El la personne de El Hadj Ndiaye et la personne de Youssou Ndour amul problème parce que bu amee problème rek ci ñoom ñaar dong la xam nga lu tax. Hmm. Euh, man euh, sama xarit yi nga xamante ni euh, dafa am lu ma dundox ñoom mais El Hadj Ndiaye Youssou Ndour Youssou Ndour euh, El Hadj Ndiaye studio dëkkandoo ensemble faire énormément de choses ensemble. énormément ci nekk ci ñoom yaar yàlla ni may koy waxee mais daf la berndel sa adduna yëpp même ah jafe-jafe yi si am yëpp à la fin de la journée. ce sont des gens qui règlent leurs problèmes sans wooma sans woola sans ñaan sans dara. ku nekk yàlla nga koy defal loo xamante ni yow sa bopp da nga naan mais kii naka la def ba am loolu. ñoom ñaar ñoo war a delloo seen xel ñoom ñaar ñoo war a nekk ay kilifa am foo xamante ni. Euh, xam ne yàlla dañuy delloo dañuy euh, bi ma waali dafa loolu benn neuf xaw ma ñaata mais les parents c'était kii El Hadj Ndiaye Youssou Ndour Baaba Maal Omar Pène Ismaël Lô et parce que ak Thione Seck ah. parce que c'était des dafa am lu ñu dund seen biir loo xamante ni buñ ko dajalee buñ la ko waxee danga nga naan ce n'est pas possible mhm. da ngay wax non mënul nekk euh, euh, Omar Pène par exemple je te donne juste benn anecdote Omar Pène ànd naa Youssou Ndour ñoom ñaan ñëpp ñu nekk ci même bus Euh, Omar Pène sol benn t-shirt malheureusement am lu ci sotteeku te mi ngi dem pour yéeg si kaw seen Youssou Ndour moo sol deux t-shirt moo ko din moo dindi benn jox ko ça c'est Omar Pène qui le raconte. xam nga am na jaar-jaar yoo xamante ni. boo leen jamono jooju jamono jii du yomb ñaari. waaw jamono jamono jooju mais quand mais quand même je dire nit mënoo fëx a jëf mënoo bàyyi di nekk sa ginnaaw. li nekk sa ginnaaw foo muy performance nga koy nga fay dellu mu nekk sa repère El Hadj Ndiaye ak Youssou Ndour man gis naa leen bu dul benn bu dul ñaar defalante nañ ay teraanga yu dul jeex tey ah ñu mën a wax ci nopp Youssou Ndour ah ñu mën a wax ci nopp El Hadj seen relation si son si ñoom ñaar kese les. yaa ngi koy wax léegi ak ñu mën a wax nga wax ak ñu mën a wax <laughs> euh, may ma ciy toftal rek ci li Mouhamadou Moustapha wax léegi Big Taf. Euh, artistes yi mën nañ ko defante sax am nañu ko ci mën a defante mais tey entourage bi moo leen ci dul bàyyi peut-être benn bijou bi dina ne ah, lu tax ngay def lii. wala sometime day jafe. donc voilà euh, euh, tey ñu gis ñu am tension boobu mais on parle tout le temps si entourage bi.